salaatan wa salaam wa barakatan taquudu biha li Shaykhil Xadim alxaa'il sillaali ilal jannaati baaxin tawassaat wa kulli wa maa li shaana xaamin musassisu mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana fas yéene dikkaat ak yéen ci lenn ci jataayi sëriñ bi sëriñ Xamsatu Jaxate radiyallahu taala anhu am na bis ca Jolof sëriñ Tuubaa xaadala wallaahu maxtaaralahu jox ko am mbind ne ko toogal ci buntu xayma bi mu toog fa ab diir sëriñ bi woo ko mu ñëw ci biir xayma bi bi mu duggee fekk ca biir naar bu am daraja xees lool sikkim bi gudd lool mu rafet lool sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaar la ko ne ko nuyul kii mu nuyu ko sëriñ bi ne ko mën ngaa dellu mu dellu ab diir sëriñ bi woowaat ko mu dikk fekku fa naar ba te xayma bi benn bunt la am te fa toogoon te it kenn romb ko fa jàll mu xaw a jaaxle lool sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara loxo ne ko ndax xam nga ki nga fi fekkoon ku mu mu ne ko déedéet Mbàkke sëriñ bi ne ko sayyidina Hamzatullah radiyallahu taala anhu dama ko soxla woon woo ko li ma ko doon doye nag mooy dama bëggoon bépp ja boo xam ne amee woon na ko ci xare bu mu mas a xare mu jox la lépp te nangul na ma ko kon nag du ñàkk nattu ya ko gaaroon am bu la ca gaar siiw na yàlla ñu yàlla sunu borom subhaanahu wa taala dimbali ci liggéeyal sëriñ tuuba xaada la wallaahu maxtaaran lahu te ànd ak yar ndax liggéeyal ko murit bi mën na cee ame lépp waaye ñu xam ne sëriñ bi kenn mënta ànd ak moom ku dul boroomub yar bokk na ci ab yar yem fa mu la yemloo ak tappoo la mu la tànnal ci waxtu wu nekk ndax bu ñu seetee sëriñ xamsatu jaxate radiyallahu taala anhu yàlla na ko sunu borom subhanahu wa taala yokk leeram bi sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaraloxoo jóge ci géej gi bokk na ca la maam ceerno ibrahima faati radiyallahu taala anhu wax sëriñ bi ñi nga ma boole loon moom laa ci gën a am yaakaar wallaahu aalam sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaraloxoo ca jolof am na bis muy bind dégg ay fas di yëngatu mu ne loolu lu mu ñu wax ko mu ne man daal jaaxle na koo xam ne takkatul tukkeetul te fu waay defare aw naaru góoram ba mu suur mu war indi te saa boroom it subhaanahu wa xamalaguma nu ma leen di def daldi wax sëriñ xamsatu jaxate radiyallahu taala anhu ne ko nañu leen yeew ci biti ba ñu leen fa yeewee ñu nekk fa ab diir dagg gétt ya daw di wër kër gi sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu génn ne ana loolu lu mu ñu ne ko naari góor yi la mu ne man daal jaaxle naa koo xam ne takkatul tukkeetul te fu waay defare aw naaru góoram ba mu suur mu war andi te saa boroom it subhaanahu wa xamalaguma nu ma leen di def daldi ne xaaral ma laaj saa boroom seeni mbir nes tuuti mu génn wax ne saa borom subhanahu wa taala nee na ma naari góor yi da am wow daa bokkoon ci naari góor ya ñu joxe loon soxna si nee na ma moom la ma tàmbalee fay ak waruwaay yu bari yu ñëwagul siw na lépp loo gis walla nga dégg ko am na sabab am na lu muy xamle loolu nag moo tax ñi xam yàlla subhanahu wa taala foo leen fekk dañuy fees dell ak xelaat ndax sunu borom subhanahu wa taala daa barile ba noppi xereñ képp ku mu tàmbalee woon ak xereñam nag foo tollu waaru ngay dëkke ba tey jëpp jëf ju sell day am ak fay ci àdduna amaat ak fay ëllëg yowmal xiyaam su ko defee sunu boroom subhaanahu wa it da leen wutal ay àpp inna kullu sayin xalaxna bi yi moo tax lu mu lay fay ci àdduna bu fa saw fan àggul da koy fay koo xam ne ci yow la bokk moo tax wolof yi di wax naan liggéeyub ndey añub doom ba tey jikko ji sëriñ tuuba xaadal wallaahu maxtaaral lahu jege gi mu jege boroomam da ko dégg ci waxtaan wi ndax gis nga ne da ko laaj boromam léegi mu tontu ko léegi kon war nañoo xam ne lépp ni ko sunu borom subhanahu wa taala xamee mi ngi koy gise noonu siiw na lool wallaahu aalam ba tey am na ca mag ña koo xam ne daa am ku ñëwoon ci moom ne ko dama laa jébbal sama bopp mu ne ko nañu ànd dem ba ca sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu ba ma ko ko leeralee sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu ne ko loolu wolof di wax naan ku yàgg ci pind baak fekk la fa noonu la deme daal ne jox naa ndigal képp koo xam ne nit ñëwati ci moom ne ko dama lay jox sama bopp ngir man mii nga nangul ko ko ne ko diw mu ne ko Mbàkke sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaral loxo ne ko lenn rekk laa bëgg ngeen dimbalee ma ko rikkuwaay yoon yu ma leen teg nangeen leen ciy teg rikk yoon yu ma leen di teg nangeen ngeen leen ciy teg ñetti yoon la ko ko wax siw na sunu boroom subhaanahu wa taala daa doonul ku ñuy gis ci ay bët moo tax boo ko dee jox sa bopp faw nga am koo koy seereel ku la doy sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu mas naa jox sëriñ rijaal sekk radiyallahu taala ñaari dàll ne ko boqal benn bi mu bokk ko sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu yëkkati ba ca des ne ko yóotu ko te bi wadd mu xam xel ne su yëkkatee loxoom bee wadd sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu ne ko noonu laa demeek àdduna siiw na kenn mënta gën a misaal sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaara waaye lan mooy àdduna àdduna mooy li nekk ci diggante asamaan ak suuf loo ci bëgg te yàlla sunu borom subhanahu wa taala taxul bëgg nga àdduna su ko defee sunu borom nag bëggul ku ko bokkaale ci lenn loo ko gën wéetal di ko gën a jege fim ne boo xoolee sunu boroom subhanahu wa li mu wax wa taxisullaha ibrahima qalila li ko waral mooy wétal gi sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaara loxo itam loolu moo tax yëmut ak kenn ci yàlla sunu boroom subhanahu wa taala loolu moo waral mu mën a dem ba dëkkaaleeg moom ba tey ñun murit yi ku ne fa mu toll ci kennal sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu fala ab cëram di yem ca moom di tollu am na ñoo xam ne ci murit yi dañuy dem ci loolu ba duñu laal lenn lu jëmul ci moom ci sëriñ bi wala lu jógewul ci moom wér na lool